génnal nga baalu nit ku du juum amul Mamour Diallo tey bu génnoon mu ne Mamour jàll bu génnoon mu ne Sonko vraiment maa ngi lay baalu ak Sénégal maa ngi leen baalu ak comprendre man lii ba ma ciy dugg xaw moo ne 14 moo dina ci am Sonko moo moo ma jiin 94 milliards te yàlla xam na ni moom ci li mu jàpp jëlu 94 milliards man tamit ma dégg ñu ne mu ngi dem Sweet Beauté am Ahmed mbay xaw ma Sidi Ahmed mbay ma ne ah kon kii war nañ ko mën a piéger foofu mag lan lay def ku am ñaari jabar lan lay def fii xaaral ma dem kii ko waaye nag dem nañ ba ci biir li Adji Sarr wax dëgg la man de aw ma benn vidéo Adji Sarr li mu wax dëgg la Sonko musu ko laal man nag maa topp rek ne ko déedéet dinaa la yóbbu am rek patati patata maa ngi baalu senegal yi Macky Sall def na ma euh, directeur ONAS mais maa ngi démissionné naa APR démissionné naa gis nga gor loolu lay def. gor loolu lay def mais ragal dé ba mu jaral nga dem safara parce que ñom dañu yakarne safara amul ak <laughs> am safara amna dé de safara dañu yakarne bala ngay dé nga nga bo déwé ngay dem safara safara bi fi la té safara bi bi nga waji ñew dal ci wa APR billahi wallahi taala ay weer mo la dese dund Sonko bu dëggalee bopam xawma nak Sonko bu ne dem ci biir mu dellu ginaaw parce que Sonko ngi nii xale yi ñëw euh, hôpital ba mu leen dàq da dem leen ñibbi chef de protocole bi di ñu si xas naan ay indiscipline da ngeen indiscipliné ne ñun kenn xamul wu ñu indiscipline foofu ban indiscipline ñun ñu ñëw pour libérer Sénégal nga ñuy wax indiscipline xanaa Sonko Macky Sall leen rek ko mën a sauver waa APR na rek ko leen mën a sauver Sonko dem ba ci biir sëriñ yi wax ak moom walla ay ay Habib Sy paa yu paa yooyu ay Khalifa Sall. baab ko baab ko ba sonkoo dellu ginnaaw loolu rek moo mën a sauver APR mais Sonko li mu wax gatsa gatsa billahi bu sonkoo delluwul ginnaaw waa APR ay weer moo leen dese dund Mamour Diallo Amadou Ba Farba Ngom xam mbañ Kiroukou Pape Malick Ndour jigéen ñi wax leen ma yaa yaa Zahra Thiam Youssou Ndour bu dellu ginnaaw parce que Youssou Ndour sax xëy na kii moo koy sauver bu Ndour parce que Youssou Ndour dafa muus Bouba Ndour égal Youssou Ndour lépp lu Bouba Ndour wax Youssou Ndour moo ko waxal parce que Bouba Ndour yabul Youssou Ndour Youssou Ndour kenn yaboo seen kër Habib Habib Ndour moo fiy jéngu de temps en temps mais Youssou Ndour Bouba Ndour yabu ko Ndiaga Ndour yabuñu parce que parce que Youssou li bëgg TFM moo fay am Youssou Ndour bàyyi na Macky Sall mais mënul génn mu ne bàyyi Macky Sall Youssou li Bouba Ndour di wax yëpp Youssou Ndour moo ko waxal mais ngoram moo ko mënul permettre instant bi mu bàyyi Macky Sall publiquement mais gis nga wax leen ma tur yi yi wax leen ma turu APR yi ay weer moo leen di si dund jox man dama leen di fàtte sax léegi parce que ñoom bëriwuñ benn minorité dëmm ñoo jël xaalisu réew bi di lekk rek wax leen ma tur yëpp ñoom il faut ñu avertir leen ne yéen ay weer moo leen dese dund ñun tamit xam nañ ne dañuy waaj a dee ñun ñun xam nañ la preuve gis nga li ñu def dàmbuñ gis nga li ñu sotti Sonko ñu tam xam ne dañuy dee mais yéen tamit billahi wallahi taala ay weer wax leen ma tur yi man chaque jour les mêmes laay cité Farba Ngom Abdoulaye Daouda Diallo euh, euh, euh, wax leen ma tur yi il faut wax leen ñu dégg ne yéen ay weer moo leen des vous êtes des morts vivants Doudou Ka merci jox leen ma tur yi jox leen ma tur yi gat sa la ñu toj il faut ma dugg ci kay live live kay foofu foofu lay gën a am sens jox leen ma tur APR yi Bassirou Gueye merci bind leen tur yëpp Amady procureur bi Antoine Diome bind leen jabaru Antoine Diome bi bind leen tur yi gars yi na jax ay weer moo leen dese dund billahi xanaa Sonko dellu yërëm leen dellu ginnaaw wala ngeen baab Sonko xale yi di ñëw ma leen dàq daal ba mu leen dàq Sonko dafa war a bàyyi Seydou Gueye bind leen tur yi ak ak transhumants yi bind leen ñoom Bamba Fall maa xam dañ leen di wax ne ay weer moo leen desi dund billahi wallahi taalahi ñun suñu réew duñ ko saax-saaxee masali duñ ko saax-saaxee ngeen jàpp ni duñu tiire ay bal di rey ay dàmbooj yaakaar ne yéen tam yéen tam da ngeen di dund xale yi amuñu dara dara amuñu ko jëppeet lay def Sénégal barki rasulaay boo gisee ñu leen di bind nii gars yi bind leen tur yëpp dañoo bëgg ngeen jël seen responsabilité ngeen bàyyi Macky Sall Pape Ndour bind leen tur yi xam nga kan moo ciy sauvé Ousmane Noël Dieng man de moom laa fi gis koo xam ne kenn du ko laal gars yi Ousmane Noël Dieng kenn du ko laal Mimi Touré kenn du ko laal Antoine Diome wax leen ma juge ba ci nekk sur cour suprême Ali Siré xaw ma lan baax xaw ma wax leen ma juge bi waroon juge ak Adji Sarr Ahmed xaw ma lan Dior Diagne bind leen tur yi gars yi bind leen tur yi pour ñu avertir leen ñun ñun ñun menacé wuñu leen de ñun dañu leen bëgg Mamour Diallo sama xarit bind leen turam bind leen Suzanne Camara bind leen sama turu xarit Mamour Diallo ñu avertir leen ñun dañoo bëgg ngeen dund Macky Sall bu mu leen dugal Youssou Ndour sax bind leen turam waaw mais Youssou Ndour mën nañ ko baal baal parce que Bouba Ndour Bouba Ndour lañ ci rus waaw parce que Youssou Ndour comme ni ma ko waxee Youssou Ndour égal Youssou Ndour égal Bouba Ndour bind leen tur yi waaw kay activiste yi Mati trois pommes xaaral ma dem toogee ne dafa am benn waay bi waaw il faut que ñu xam. benn liste su ma duggee ci kay suuf su ma duggee live kay suuf dama koy wax ñu def liste parce que xeex bi foofu la toll Farba Ngom merci gars yi bind leen tur yi bind leen tur yi moo Morgun <laughs> merci Mollah Morgun tamit ñoom ñëpp ñoom ñëpp activistes yi eh waa ji bi Macky Sall jëndal télé nu ma tudd ba ba ci am xaw ma Ahmed Mbaye Sidi Ahmed Mbaye eh man menacé leen de ñëpp ku xam Mister cheikh xam ne je ne suis pas violent mais dama bëgg ngeen jël seen responsabilité avant que ça ne soit trop tard parce que yéen Macky Sall mi ngi leen di jaay Mame Mbaye Niang fan lañ ko fàtte woon général Moussa Fall Adama <laughs> mbër yi ñuy tudd ñu nekk fi di wax di weddi génn leen ngeen weddi mbër yi ay ay Siteu yéen a ngi dugal seen bopp ba jaxati yéen a ngi dugal seen bopp billahi wallahi taala Macky Sall mi ngi leen dugal surtout nag bu Sonko deewee waaw Siteu Papa Sow yéen ñëpp ñu ngi leen ci tudd Papa di wax naa ne 800000 lañ may fay Cheikh Yérim Seck ñoom xamuñu danger bi ñu nekk ci bomb la ñu toog Mansour Faye Marème Faye Sall doomu Youssou Ndour non Youssou Ndour moom bu leen ko bu leen ko kii bu leen ko bu leen ko tudd parce que Youssou Ndour nee naa la moom Bouba Ndour ñoo yem Youssou Ndour kenn du ko def dara TFM kenn du ko def dara parce que su ñun la ñu far léegi Matar la Kagulaar gars yi bind leen tur yi na jax laaj bi nañ ko jeexalee noonu Amadou Sall dañ leen di avertir. kiriku nag yaa xam mbay nag amul ay noppi naa temps yi attaque tuma Sonko de loolu amatul de képp ku bokk APR mësa tedd ci ak paa géwél yi nag doo leen bind doo leen bind paa géwél yi Zarko paa géwél bi paa boobu nu mu tudd Xaadim Samba xaw ma bind leen ko Dame Dieng vous êtes en danger de mort billahi wallahi taalaay man monsieur Cheikh damay artu man bu ma sañoon réconciliation nationale mooy am te réconciliation nationale xam nga moo koy indi ngeen génn ngeen jël seen responsabilité ngeen ne nag ah ñun ñoo commencé rey ñun ñoo commencé rey di tiire ay dàmbuj looloo tax gars yi génn pa ngol-ngol bind leen mbay pexe <laughs> bëriwuñu waaye bind leen bind leen billahi wallahi taal ñun ñun moom dee nañ ba pare waaw ñun moom amuñu ñu ragal on est mort moom moom Cheikh Cheikh saa waay nu mu tudd waa ji ñu jàpp kër bu mu xam moom xam naa dañ koy rey. nit dof dañ koy rey man mii Mister Shake dañ may rey boo demee sax sama famille dañ may rey waaye yéen tamit doo leen rëcc de ay eh, Mati Touré moom bu leen ko fàtte Françoise Hélène Gueye bu leen ko fàtte bind leen activistes yi les activistes républicains wax leen ak saa waay xale bi nu mu tudd kii kii fatoon Adji Sarr wax leen ko mu génn mu wax kii fatoon Adji Sarr wax leen ko mu génn mu wax nan la tudd Gabriel Kane mu naan bu bu wax jotee dinaa wax Gabriel Kane wax jot na de ku bëgg sauver boppam Fatoumata Seydi Tampi ku bëgg sauver boppam génnal billaahi wallaahi taalaahi di ngeen ne monsieur Cheikh waxoon nga ko di ngeen ne monsieur Cheikh waxoon nga ko man damay gis lu dul ñëw suñ ko waxoon naa leen dañ koy jàpp lu dul ñëw dama koy gis parce que du question ne dama am baatinde mais dama am expérience dama yàgg voyager Kaliphone Sall ñoom xamuñu ci danger bu ñu nekk eh du ñoom kese ñëppay dee cëppet lay def Sénégal booy seen yaram dafa tàng bind leen tur yi 300 lañu. wuñu wa affaire ay dem lañu 300 rek ñoo jël bind gabi kan ñoom ñëpp bind leen ki neena ak man ak mané kan ak man wa nga bind wala ak mané ayo ah, affaire nga Abdou Nguer kuy Abdou Abdou Nguer ñom ñepp xam nga lan mo leen di sauvé ñu genn ñu jël sen responsabilité comme si xam nga ni sisolo kenn du ko def dara bien que nak ma ngi gis doomu temps day day day am lu mu wax wax leen Pape Lo mu noppi wax leen Pape mu noppi sisolo kenn du ko def dara waaw Mimi Touré kenn du ko def tous dara duñ ko def waa PDS tamit yóbbu ñu def attention waaw Bougane tamit na def attention Bougane na def attention waaw parce que gars yi ñu naan Bougane Mansour Faye moo ko yónni pour mu saagoo ko xaw ma la dugg na fi génn génn na fi Adji Sarr waaw papay Adji Sarr ñoom ñëpp yóbboo ñu xam ñu ngi ci danger ñu ngi ci danger génn leen ngeen bàyyi Macky Sall parce que président buy rayaate moom

lu kenn ñemewul wax Macron man maay jaagu Sonko nee naa leen fu mu duggee ci combat bi combat bi jeex parce que Rasulaay xëy na daw xëy na Cheikh Bara Ndiaye li mu doon wax dëgg la de bélier bii man bélier laa man man gaa yu affaire moral morgan yi du ma ko def man a man a man a du ma ko def man gëm ma ay affaire sama maam lii la man dem ba sax révélation bu mu leen bëgg def bëgguma koon def man sama yaay Coro Fall la tudd Coro Fall sët la ci xaali Amar Fall sama benn maam dirigé na pur sama papa da enregistré naa ko sama papa dund na cent un ans billaay enregistré naa ko mu wax ne sama benn maam dirigé na pur trente ans kon Ahmed Aïdara bu fi nekkee di tëb di dëmm dëmmal di wax sama maam lii sama maam laa te amoo benn preuve ah waaw benn minorité bu ndaw Céline Mortier Mbacké a parlé kuy kooku Serigne Emmanuel Macron eh Serigne Serigne kii bi ni mu tudd. sëriñu sëriñu euh, omarien bi moom mi ngi bëgg muus sëriñu omarien bi moom génn na loolu lañu soxla sëriñu omarien bi génn na mu ne nañu wax gis nga nag loolu laay xaar ci waa APR waaw loolu laay xaar ci APR sëriñu euh, kii bi nu mu tudd omarien Cheikh Bachir xaw ma taal xaw ma génn na mu ne na xalifa yi na xalifa yi wax kooku ñoom Marine Le Pen moom mënuluñu leen dara kooku xam na danger bi ñu jëm waaw léegi nak euh nee na est-ce que Sonko tane na en tout cas fofu lay jeexalee live bi live bi fofu mu jeexal wax len live kay foofu mr Shake daf la soxla dafa bu dugg sa live li wax ni yëpp du dara lancement la li wara wax ak kay foofu ay épisode lay doon ay épisode lay doon dinañ wax ci Mamour Diallo dinañ wax ci aji saat dinañ wax ci Mame Mbaye Niang dinañ wax ci sëriñ yi affaire làppato yëpp dañ ko wax te man dama am fit man lu ma war a wax yëpp dañ ko dama koy wax waa affaire list bii dañ leen di defal benn liste ama kay moom amul lu mu ragal dañ leen di defal benn liste noire na leen yéen ay weer moo leen dese dund menacé wuñ leen nag dañ leen di avertir dañ leen di avertir bu koo deewee laa wax ngeen continuer di di rey ay nit foofu laa waxee yéen nag lenn moo leen mën a sauver <laughs> non Wally Seck moom génn leen <laughs> lenn moo leen mën a sauver <laughs> moo leen mën a sauver ngeen ngeen ngeen wane ne da ngeen bëgg Sénégal ngeen ngeen ci Diomaye fay Diomaye Faye comment faire pour avoir des cocktails des cocktails Molotov dégg nga Diomaye Faye cocktail Molotov non man yooyu dugg ci dugg ay cocktail Molotov man dama leen di artu man dama leen di artu affaire bi du soxla ay cocktail Molotov affaire bi. boo rey Sonko gars yi dañuy mer mer mer dañuy dem rajaxe ñëpp la ñuy rajaxe Maître El Hadj Diouf lu tax ngeen bind ko mais yéen gars yi yabaate ngeen de da ngeen fàtte Maître El Hadj Diouf Anatone mi ngi laal da ngeen fàtte Maître El Hadj ak beneen maître jaali kañ xaw ma lu sax bindu leen Maître El Hadj Diouf eh, leen ma tur Maître El ñu ñu avertir ko xam naa ne am na ñu ñu fàtte mais su ma duggee live case bi yooyu yëpp dinañ ci wax eh bindal leen ma Maître El Hadj Diouf balaa may coupé live xam naa ne sama jabar après dina moo di wax ay waay monsieur Cheikh ah ouais, monsieur Cheikh hein? Viviane et son chien doo je ma mettre la la Voilà, Diouf mais couper la. live Alusso, Wolf TV voilà Charles TV. eh Charles beaucoup de Charles mu ngi wax Ok, waaw kay la ma merci non tant, Tandian sax génn na ci affaire yi me xëy nañ ko voilà gars <laughs> ay ah, waay Mister Shake xam naa sama jabar ndeysaan ah man ne naa ko jëkkëru ab jëkkëru gi ngeen am de jëkkëru jëkkëru activiste nga am ngeen baal ma man Sénégal laay jiital bu yóbboo ñu taal sama kër suñu kër sama papa dund na cent un rey leen ko bu la neexee ngeen rey ko mais duñ tax ñu tere du ñuy tere ñu avertir leen pour ngeen wax seen waa ji Macky Sall waaw gars yi naa coupé laaj di leen gërëm di leen sant di leen jox rendez-vous bu ko kays nangoo mercredi bii koj leen ma ci kays foofu wax leen kay suuf Mister Shake dafa bugg dugg sa live te dafa bëgg sax ñu ubbil la télé waxal leen ma ko man pare naa pour contribuer ñu tijjil kay suuf télévision nee leen ko nag damaa bëgg dugg ci live am te li ma wax yëpp waxaguma sax genn wàll voilà gars yi maa ngi leen di gërëm di leen sant dama war a liggéeyi mais waxal leen ma kay suuf Mister Shake dafa bëgg ñu tijjil la télé Mister Shake dafa am ay révélation yu mu war a joxe parce que xam na waa APR bu baax. Mister Shake li ñu def Dame Mbodj moo ko gën a moo ko gën a yee mu xam ne Macky Sall reykatu nit la dootul président dañ ko fa war a jëlee général yaa ngi wax colonel yaa ngi wax Sonko bu mu génn Sénégal Sonko na bàyyi xale yi di ñëw di ko seet si am tax koj leen ma ci Kayz Fof non dama war liggéey nag non gars man ay épisode laa bëgg def ak Kayz Fof man maay njaagu Sonko billahi xel bi mu ci duggee di ngeen xam ne lépp dëgg la li nga xam ne léegi Mollah Morgun du tus man du ma saaga duma ma du ma wax dama leen taal kër jàmbur mais dama leen di dama leen di yee waa APR laa yee conscientiser conscientiser leen ba ñu xam ne ñun dañoo bëgg ñu dund dañoo bëgg sauver Sénégal te xam ne Sénégal bu tàkkee ñoom parce que ñoom ñoo yor milliards ba pare ñoom seen kenn ciy des voilà merci waxal leen ma kayis foofu loolu man am naa numéro dinaa ko jéem woo après ba xam jaajëf gars yi non tur yi moom dinañ leen bind ci kayis maa kayis dañuy def liste Gaston Mbengue sama gars yi bon gars yi <laughs> waaw gars yi merci merci beaucoup ba mercredi